asalaamaaleykum man la bébé Hawa ja man nag dama duggoon ci benn sit bu naan Allo dakaar euh, doon waxtaan ak sama benn xarit bu naan bu naa ma faati ci kaw waxtaan bi dañ doon waxtaan pour mu defal ma benn publicité mais musuma cee sawar mais ci kaw waxtaan bi li ma bëggoon dégg ak li mu wax dafa wuute trop ci sama xalaatu bopp ndax man politique du sama affaire duma ci wax xaw ma ci dara te nit du wax loo xam ne xamu ko ginnaaw nag xawma ci dara te gis naa li mu bind te xam naa ne man lii waxuma ci dara li ma bëggoon daal man li ma doon gënal muy mu wax ma ci li nga xam ne man moom laay liggéey walla mu wax sax li mu xam ci man te ku ma xam tamit xam na ne man duma wax ci politique parce que ma ci dara musuma ci sax am client te média tam musuma cee wax topp na ma nag lu yàgg kaay ma defal la publicité kaay ma defal la lii nag laa doon bañ ñu dollil ma loo xam ne waxuma ko tey waxuma ko ëllëg muy benn ñaareel bi ginnaaw nag wax na ba pare ma nit foog mu ñëw wax li nga xam ne nii lii laa wax man waxuma leneen sama waxtaan ak moom lépp daal ci sama liggéey laa bëgguñu wax ci loolu lañ waroon a wax waxuñu ci lool nag moom dolli na ci politique mais bind boo xam ne nii àdduna bi yépp di ko gis samay mbokk di ma woo samay am di jàmm di ma woo ku nekk di détail sama bopp bi di buur te loolu doxuma ci waxuma ci tamit neexuma sama liggéey bii nag moom laa xam si bu ma ci laajoon ne dinaa ci sawar a tontu ba may am fukki at ak ñaar fukki at ak juróom-ñaar ba léegi maa ngi liggéey sama liggéey bii laa xam xaw ma leneen bu doon sax ci mbiru football la ma laaj wala la ma waxal sax amaana sax dina na lii waxu bébé la. bëgguma daal ñu ma ci waxal lenn ndax waxuma ko tudduma politik xawma ci dara mosuma cee liggéeyal nit sama liggéey daal li ma ciy def mooy mbiru rab la ci loolu laay dox ci lool laay liggéey ci fubal laay liggéey ci ay jigéen ñu wérul laay liggéeyal man ba may am ba may am treize ans laa commencé sentir que am na leneen luy wax ak man lu bokkut ak nit dikkee na ma nag ci ay gént mais dama nekk ci famille boo xam ne gëmuñu affaireu sëriñ ñoom xamuñu lu dul jàpp julli surtout man kër gi nga xam na nii falaa màggee ay pettaaw yi xamuñu ko kër gu mu nekk sax duñ fa dugg yàlla nattu leen nag xëy nañu am doom ju mel ni man kuy def lii neexu leen fu ne nag faju naa fa faju naa fu ne mettitu bopp di ma rey dugg naa fan def naa lu ne fu ma xam ku mën dara rek dem naa ci moom ñaan lu pour affaire yi mais xam naa ne lu ànd ak man la ma gëm ko rek assumer ko maa ngi liggéey nag bi ma amee di ans laa commencé di liggéey am na ñoo xam ne rab da leen jàpp ñu ñëw ñu war leen a sampal bon man nag duma la sampal mais am na neneen nu ma lay faje am na ay fas yu ñuy takk comme fas yi nga gis ni ci mbiru rab boobu tam laay ñëwaat nekkul loo xam ne tam doonu naa ko fekkuma samay maam yi di ko liggéey fekkuma sama nijaay di ko liggéey dugg na ma dugg na ma ñu foog ne peut-être feebar la lu nu mën a faj mu wér la mais dem nan ba mujj maa bàyyi ak sama bopp nag te tamit li ma dimbali tamit dimbalu suma borom rek la ah bu ma dikkalee nag may faj que lépp tam miñ ci gémmiñ gi nekkul loo xam ne dama ko donn wala dama koy bind sëriñ jàng lu ma doon ma mais ñaar yii te lepp lu may def ci fas la koy defé fas bi ay perle mais digënté bi dang koy fas que jigen ju amagul borom kër dina ko tak ku am borom kër tam dina ko tak mais jank bi ko tak ba sey fekk la ci kawam sa borom kër kenn du ko tak xala même buñ ko xala tam du japp parce que fas bim la fekké la mais loolu nag làkkat yi dañ koo mën ñun pël une deux ñu takk la xala yàlla buñ takk na koo xam ne yow danga ko bëggoon mais bu fekkantee nga takkoon fas bi ka xala moom duñ la ko jàpp soo ko takkee tam ba am boroom kër ba ëmb ba wasin sa doom bu juddoo danga ci war a dindi ñett takkal ko ko bis bu demee bay feeñal tam du ko yëg kon xam nga fas bi am na njariñ te li mu ëmb tam bëri na mais dama koy tënk rek fas bii dinañ ko jox góor dinañ ko jox jigéen dinañ ko jox xale buy doog a judd dinañ ko jox tamit ku feebar dinañ ko jox koo xam dafa amee béy ak ku tànkam di metti fas bi dinañ ko dugal tam ci équipe bu football ka mbooloo mun na koo takk ka capitaine bi tam mun na ko takk ka góol bi mun na ko takk sans dépend nag ki koy takk ak liñ koy waxal kenn ku nekk am na nun ko koy ñaanale mais benn buum bi lii buum kese la mais buum bi buñ koy buñ demee fu mu nekk nii def nan tënk nañ ko nii rek teg xamuñu kan mooy boroom léegi nii boo ñëwoon ne sa bopp day metti dañ koy fas takkal la ko ci sa baat boo ñëwoon ne loxo mooy metti ci la ñuy yeggali fas gi fas ko buñ ko tegee nii moom moo nekk nii buñ ko jëlee boole ko ba mu bëri dañ koy nàndal teg ko suñ ko nàndalee bu nit ñëwee am lu koy metti yow fas gi ngay jël fas parce que man ci ay fas laay liggéeyee liggéeyuma ci leneen lu dul fas ak ndox mii nga xam ne ne am na lu ma ci yàlla may te ndaal yi géej laa ko fore ma foreeku géej nag yendoog moom nag suba ba jant sox muy doog a teer ma foree ko ci dëkk bu naan sendu lépp lu may defal nit tamit ci ndaali laa koy defale bu dee sangat la ñun naan nag garabu olof garabu pël tamit am na lii nag ñun pël yi moom ñoo ko moom sunu yëf la fas bii nag lu nekk mën naa cee defal nit ndax li ma yàlla may mi ci sama gémmiñ gii rekk lu ma ci bëgg a wax rekk laa ciy wax nit ku nekk daal ak sa problème boo ñëwee ba ma seetal la ba pare ci laay xam lan laa la war a defal su dee dama la war a jox fas dama lay jox fas bu dee dama laa war a sang dama lay sang su fekkantee sarax kese laa la war a wax nga dem defi ko sa affaire baax dama koy def mais am na ñoo xam ne tey dañuy ñëw nga seetal leen wax leen sarax kese nga joxoo leen sangat joxoo leen dara dan naan kii li muy def munu ko ndax foog ñu ñëw nga ne leen dañ leen dañ leen a liggéey ku ñuul kee la liggéey wala ko xees ki wala ko zone bi ñuy doog a gëm ne kii xam na dara te fekk nit ki mun na ñëw benn liggéey jàpp ko benn rab jàpp ko stress moo koy jàpp ak coono àdduna mu yaakaar ne dañ koo liggéey yaakaar na dañ koo indil ay problème du xam fu bu ñëwee nga xelal ko xel boobu nga koy xelal moom du ko nangu ndax du loolu la bëgg a dégg li bëgg a dégg mooy na ñëw nga ne ko dañ laa liggéey dañ kaa def ci lii dañ kaa def ci lii bu ko defee nga fayee ko ko xaas bu dul jeex te comme te nag ñoom ku leen di nax la ñuy bëgg des fois dañuy ñëw ñu ne leen ndax man nag moom xalaatuma ndax damaa toll ak jamono te alal daf ma mak lool nak, gisuma nu nit du toll ba boo ñëwee ma wax la man gisuma ko def comme ñi nga xam tamit xamuñu ma te bëgg maa xam bëgg ñëw ci man ñuy war a ñëw ñu dimbali leen rek tax na rek man daal ñaan naa yàlla kiy ñëw di ma seet te yàlla rek tax na ñëwee yàlla ñu jëflante maak moom ma liggéeyal ko mu ñëw ma dimbali ko rek ci li ma mën su ma ko seetalee gis ne war naa koo dimbali ma dimbali ko mu génn ay saraxam ñu defal ko liñ ko war a defal